13h mbokk yi asalaamaaleykum bisimila ci xibaar yi nag tey mardi 17 mars atum 2015 xibaar yi nag ci trésor bi kon ci wàllub yoon la ñu koy dooree Serigne Assane Mbacké nag la ñu kon def rek mandat de dépôt ca maison d'arrêt ak correction bu nekk nag fële ca diwaanu Diourbel ñu defee rek ko nag ginnaaw audition kon ci brigade spéciale bu Touba ñu def ko nag mandat de dépôt ci wàllub incendie volontaire ca kër Cissé Lo li ñu koy toppee nag soo amee su may wul mu dem cour d'assises lu leer moo di nag démb Touba moo xawoon daal kon tàng lool nañu sax am na beneen kër bi ñu lakk ndax mer ak boobule convocation Serigne Assane Mbacké Bathie Seras lañu ñu defeere nag au parquet ginnaaw rek ñaari fanu garde à vue ca commissariat central bu Guédiawaye mu si nag ak aminat Ngiraan promotrice calub nag lamb ji mu di koon ab xibaar bu neexul dëkkandoo boobule nag mbër ñu naxarlu ko ci bile reportage bu xawa Mamadou Konaté amul loolu sax champion la booy bëri fii moo leen def mbër yaa ngi dégg si moom la roy ñëpp bëgg dara bàcc la dégg nga yi xam rek nit ki saa su da nekk si liggéey di jàppale say waajur xam nga doon ndaw gëm boppam ñu bu ko ay jafe-jafe nga xam ko quoi mais yàlla baax na yàlla ko yàlla teggi te day ñëw léegi ku ko newa day entraînement ñëw confirmé si kaw la jëm kenn du tee ginnaaw raay rawatina ci ndaw yi ñu ngi wéy di ñaawlu seen naataangoo mi di Bathie Seras mi nekk ci loxo yoon depuis barki démb ñoom ñu ngi weddi tuuma yi ñu teg ci ndodd Bathie Seras te di xam ne ne seen diiwaan du màkkaanu jëfkatu ñaawteef ah, dañ ko koo jiñ mais def ko mais Bathie Bathie Bathie du Bathie du politicien mais am na droit far Bathie mbër la dañ xam ne bàcc nekkul nit koo xam ne dafay nekk pour yëkkati fitna wala pour def naka sudul noonu déedéet Bathie moom xam nga nit moom boo weexee dunk boo weexee dugg moom mooy loolu bàcc dafa weex dugg fu mu toll lu àdduna fu mu bu bu demee stade ak fépp fu mu dem day dañ koy dañ koy teg soog xam nga dafa weex dugg moo xam nga tamit mën nañ ne dafa weex dugg rek moo tax ñu def ko noonu mais bu ko def noonu mais nit tamit bu ñu la invité am nga droit dem. bu ñu nee dafa bari ay bandi leen rek moo tax ñu ne ginnaaw dafa bari ay bandi waa moo di ginnaaw raay yu ci bari dañ leen di tuumaal waaye même bandi yi ñuy wax dëgg-dëgg sax dëkkuñu ginnaaw raay dañuy ñëw ginnaaw raay def seen i ñaaw ñaawteef wala ñu wax seen i ñaawteef delluwaat fañ jóge woon waaye parce que du waa ginnaaw raay ñoo def seen i ñaawteef suñu sukkandikoo ci xibaar yu jóge ci commissariat bu Guédiawaye Samba Ba ñu gën koo xam ci bàcc Seras ak Aminata Thiam mi ñu a xàmmee Ngiraan dañ bi ñuy waajal ginnaaw procès Karim Wade bi le 23 mars bi ñu ngi leen di tuumaal dañoo fas yéene amal ay manifester trouble à l'ordre public te ki ñu ciblé ci boobule complot ginnaaw xibaar yi mooy Aliou Sall maire bu Guédiawaye bàcc Seras ak Aminata Ngiraan janoo woon nañ ak procureur bi ci suba jaajëf xawa Mamadou Kanté nag maître El Hadj Amadou Sall nag la ñu kon arrêté ndax rek ay kàddu kon la yëngu nag teg ci ndodd njiitu réewum Sénégal Macky Sall maire bu Djiddah Thiaroye Kaw nag ndax stocké 103 pneus ca biir maireem nag retour de Paris kon ci bàcc Seras ak Aminata Ngiraan waaye itam mën na lépp ci kii di Serigne Mbacké Atex nag mu di kon ab tension balaa rek verdict bu may Meïssa Wade ànd ci nag daal benn ramassé ak Mamadou Awa Ndiaye. Macky Sall bu tëjloo Karim Wade du fanaanaat benn bés ci pale ba loolee ki ko wax mooy maître El Hadj Amadou Sall waaye nag naka la ko wax daal yëf yi daal di tàmbali daal ci kawam ndax di leer rek mooy que ne démb fanaanul këram Macky Sall nag moom ay mbiram wëraguñu waaye maître Amadou Sall daal ginnaaw yooyu la kaddu la ko wax section recherche gendarmerie bu Colobane daal di jël si nag na ba ñi ngi ko denc jamono ji liñ koy tuumaal daal moo yëkkati ay yoo xam ne mën na fippuloo askan wi beneen kilifa PDS bu nekk ay jafe jamono ji mooy commune bu Djeddah Thiaroye Kaw docteur Cheikh Dieng daal ñi ngi ko tey ci commissariat central bu Guédiawaye li ñu dégg daal mooy que ne dañoo rek fekk ay pneu yu bëri lool ci meereem ba biñ ko laajee li mu wax mooy yooyu lépp na li ko tax a jóg mooy wër ay garab ngir aar leen doyul policiers yi ba tax nañu daal di koy tëye liste kilifay PDS ñu tey nag jeexagul ndax kii di Aminata Ngiraan nekk responsable mouvement pro Karim Wade ak mbër mit Bac Seras démb loolu la am li ñu leen di tuumaal daal mooy dañ doon wàcc saboté li nga xam ne mooy xew ginnaaw verdict procès Karim Meïssa Wade bi beneen kilifa PDS daal bu ñu tegoon loxo mooy Babacar mbay Ngaraf moom secrétaire général synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue nag déglu nañ ko démb diggante ñetti waxtu ak juróom-benn waxtu ci ngoon li ñu ko doon dégloo mooy marche bi nga xam ne namm na ko amal ñaar fukki fan ci weeru mars ngir rek ñaawlu kàdduy ambassadeur bu réewum France Jean Félix Pagano yëf yi nag jeexagul ki nag mooy Serigne Assane Mbacke Atte Fadilu moom daal eh, nee na moo tàllu li nga xam ne mooy këri Moustapha Cissé Lo yi fële ca Touba moom démb rek lañ ko jàpp daal di koy jébbal procureur bu Diourbel liñ koy toppee daal mooy taal alalu jàmbur waaye itam nag bokk ci ay nit yu def ñaawteef kilifa diine bu ndaw bi daal bu moytuwul danañ ko tëj kaso lu tolloog fukki at jàpp ñaar fukk yile arrestation nag ak convocation yu membre PDS yi daal dafay wane rek na diggante nguur gi ak kujje gi laaj bi nag mooy provocation ku jégi la wala nguur gi rek mooy dal ci kaw ñu mu ëpp doole lu ci mënti am daal laaj ku jaadu na ndax jamono ji li xew jëm ci boobule wàll bëri na lool ab tension diggante nag waa opposition bi ak nguurub Macky ñett ñooñu nag waa Y'en a marre yi ñu arrêté dimanche Congo nag ñu ngi si jàmm ak salaam kenn fitnaalu leen mu di nag kaddu yu bàyyi ko ci ministre affaires étrangères ak yu sénégalais de l'extérieur nag jot nañu daal ne ñu visitu kenn ci seen i yi ñu wax ne nag ñu ngi nas di nocci kon ngir rek ñu tegi loxo yooyu le ñett ñooñu waa mouvement bu Y'en a marre fukki militant congolais yu kuréelu Lucha nag bi xeex kon yi rek wàllub changement la ñu nag teg loxo kon tey jëlee ca Goma ca penku RDC na ginnaaw daal ñu doon protesté nag ca makaanu agence de renseignement fi ñu nag te kon kenn ci seen i ñooñ daal ca Kinshasa mu di nag ay manifesté ginnaaw ñi ñu kon jàpp samedi mbokk ci nag waa ñetti ñooñu waa mouvement Y'en a marre nag Fadel Barro fu malaat Malal Talla ak kii di Aliou Sané nag ci ay xibaar ne ñu nag su may wul ñu expulsé yii di ñëw. parti AFP nag moo lu kii di Malick Gakou ak yeneen fukki ñooñu nag AFP ak benn kon ci seen xel nag màcc kon ci wàllub rek politique ñoom nag ñu ñaawlu kon ñàkkum démocratie bi am nag ci yenn ci ay parti yi nekk nag kon fii ci langue politique bu waa Sénégal bokk na ci kon parti AFP parti PS parti PDS ak sax parti bu njiitu réewum Sénégal Macky Sall kon nag di APR ànd ci ci benn nag gëstu bu élage Hadj Malick Cissé. ci émission pile ou face di ko animé si 2STV te mu jàll si alxames fukki fan ak ñaar si weeru mars si at bi ñu nekk la Malick Gakou nekk numéro 2 AFP wax wax ni fu mu taxaw du fa jóge AFP dafa war a am candidat ci élection présidentielle yu 2017 ndax moom dafa jàpp ni décision bu Moustapha Niass jël dara jaaru si yoon. Moustapha Niass carrière jeex na léegi nag mënul ne nag AFP du am pouvoir parce que pouvoir yàlla ko yore ku ko yàlla bind sa ndodd rek da koy jot. Mhm. donc daf ñu a bàyyi la yàlla la ko mu ñaan yàlla kenn ci doomam yi am ko te loolu lañ bëgg te loolu moo ñu xaajale tey. Malick Gakou wax gu mu wax ci émission Pilou Face benn fan nañu si teg comité directeur bu AFP dàq ko moom ak fukk ak benn naataangoom ndax seeni gis-gis dafa wuute ak seeni njiit di Moustapha Niass loolu la comité directeur bi wax saal yu Samb di docteur en sciences politiques dafa jàpp ni Malick Gakou am na lu mu bëggoon teg ci Moustapha Niass dafa daanu ci nëgg sërëxal bu ko numéro 2 bi lalaloon. Malick Gakou bu yàggul gis nga dem na ci Ablaye Wade. président Abdoulaye Wade waxtaan ak moom ci Abdoulaye Wade nekk ci kujje gi di dal Macky bu baax a baax ca fekk mu parti bi mu bokk Moustapha Niass ñu nekk ci biir gouvernement bi di jàppale Macky loolu neexul waa AFP waaye euh, Malick Gakou bi mu koy def moom tàggulu kenn li ko neex la def am na sañ-sañam ci seen télévision 2S def na fa benn waxtaan boo xam ne nii euh, mooy mbamba tey ci réew mi waxtaan bu yaatu boo xam ne daal wax na ci lu bare bëri waxuma ne loolu moo waral ñu dàq ko na ci li tax na mënatu la nekk ak ay euh, waa AFP ci même parti bi. Abdoulaye Ndiaye di formateur ci école journalisme bii di CESTI te xam-xamam màcc tamit si wàllum politique nee na lii bettu ko benn yoon ndax Malick Gakou gisatul woon boppam ci AFP. moom Gakou moom ndaw la mën naa am ambition boppam mën naa tamit fexe ba ëllëg si biir mu xool nu muy mën a nekkee ci parti boobu mbaa ci beneen parti boo xam moo koy doxal boppam waaye bu duggee ci parti it xam na lan mooy mooy ligne directrice ba parti bi teg bu jógee ba dem féeli boppam ak li ak li parti bi teg. bu ca jógee mbaa ñu jëlee ko ci dama yaakaar ne njort na xëy na mu mën naa def ji leneen lu dul continuer di nekk ci parti ba mu loolu sama gis-gis bopp nag li ko gën a li ko gën a li ko gën a euh, ëmb mooy looy def lu def ko ak loo gëm def ko ak aw fit. Malick Gakou baadu dafay topp tànk Djibo Leyti Ka Idrissa Seck wala président Macky Sall comme ni ko ëtt yéenekaay bi di réew mi bindee tey jii ki bind article bi ba jàpp ni Malick Gakou ku am te du nangu benn yoon ñuy naxasal démocratie si parti. parti booy set dañ leen tuddee parti ay démocratique waaye duñ parti démocratique damay wax seen parti démocratique sénégalais bu ñu nañu koo seetal beneen tur ndax ko a xam ne parti Abdoulaye Wade du parti bu démocratique ndax parti la boo xam ne mooy buur mooy bumi mm, na itam ci parti socialiste eh, Ousmane Tanor Dieng kon nga xam ne fi mooy buur mooy bumi depuis bi eh, bi eh, bi ñu daanoo jóge ci nguur gi noonu it la amee ci parti bi nga xam ne mooy mooy mooy APR tey moo nekk ci nguur gi fesagul loolu waaye ku nga xam ne nii APR la fa neex Macky Sall moo moo mooy am. politique. dafa am ay façon dafa am parti yoo xam ne yi dafa am ñu leen sos ñoo xam ne ñoom ñooy feeñal seen jëmm ci parti boobu boo waxee parti boobu ñoo ngay daal di xalaat parti yoo xam ne dañu doon parti yuy dox moo xam ñu nekk ci di xëccu pouvoir mbaa moo xam ñu nekk ci pouvoir mais li ñu war a jiite léegi mooy ñu fexe ba parti bu mu ci mën a doon léegi ne muy taxawee mu doon foo xam ne fii ku ci nekk ku ne da nga ci am cër am ci sa xalaatu bopp am loo ci mën a wax loo xam ne lii du la jural ëllëg ñu ne la dañ la ci war a mën a génne. si fàttali AFP di alliance des forces de progrès yëngu-yëngu yi am na ginnaaw ba secrétaire général bii di Moustapha Niass waxee ni moom du présenté candidat ci élection présidentielle atum 2017 mu janoog Macky Sall Malick Gakou ak ay naataangoom fu ñu jëm lu si kanam rawuli gët. jërëjëf Malick nag benn ponk kon ci biir xibaar yi rek addu tabbi ci wàllu banqaasu njàng mi ak njàngale mi nag ci gàttal gouvernement ak syndicat SAES ñoo xatim benn accord nag démb kon mu di accord rek bu ëmb douze articles yi tënku kon ci loi cadre université yi nag mu fësal ay place ci seen conseil d'administration moo war nag jeexal grève waa SAES bi rek nag tàmbali woon le 16 février mu di ab loi cadre nag bi war a delluwaat ca tableau assemblée nationale jàmmarloo moom nag euh, démb diggante daal étudiant université Gaston Berger ca Saint-Louis ak ay policier nag yu la étudiant kon ñoo manifesté ngir rek ŋàññ boobule nag loi cadre jëmee ci université publique yu ma Sénégal nag ñuy sàkku daal ab audience ak ministre enseignement supérieur Mary Teuw Niane ca Saint-Louis Moussa Ousmane Diagne Abdou Boye mbir mi tàngoon na lool ci diggante ñi nga xamee ni ñoom ñoo di étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ak takk der yi nga xamee ni ñëwoon na nak ngir mën a génne xale yi ci route nationale numéro 2 bi nga xamee ni jëloon nañ ko ci suba si ñi nag nga xamee ñoo di étudiants yi li leen taxoon a jóg rek moom moo di maire gi nga xamee ni maire nañ ko kii di jëwriñ gi nga xamee ni moo yore njàng mu kawe mi ci dogal gi nga xamee ni jël na ko te ñu tuddee ko loi cadre. ñoo constaté que ni lépp loi ay négociation mi yi dañoo dem ba ci biir ñu gis ni ministre bi dafa jël étudiants yi mu seppi leen sànni te loolu ñun dañ ko rafetlu ndax dañoo jàpp ni loi 4 euh, bi baaxul tey ci université bu Sénégal te loi 4 boobu warul mën a jàll te lépp loo xamante ni dañ ko war xaati mu jëm si loi 4 étudiants yi dañ leen si war boole ndax étudiants yi dañ si am baat dañoo lu ñu war a wax wàcc télé bi demander au ministre mu rencontrer dans les meilleurs délais pour ñu wax ko tey mooy intérêt étudiant si loi cadre boobu lépp loo xamante ni nekk na si loi cadre bi da nekku intérêt ñun dañ koy dàq te incha allah dinañ ko xeex ba mu mat sëkk ñi nga xamee ñoo di étudiants yi ñoom nag ñëwoon nañu jàmmarloo bu metti ak ñi nga xamee ñoo di takk der yooyu taxoon nag façon stratégie bu nekk def nañ ko ngir mën a jàmmarloo ak ñoom. comme ni ñu koy waxee rek coordination et structure la boo xamante ni bu responsable tey wàcc nañ si national bi manifester sunu mécontentement demee dinañ tegaat yeneen jéego pour woon autorité bi que li nga bëgg def bu fekkee xoxatal la wala jaay doole it incha allah ñun duñ ko nangu et duñu bàyyi loolu mu gannaaw ba ñu meree lool gouvernement bu Sénégal ak kii di jëwriñ gi ñoom nag tey jii décrété nañu mot d'ordre de grève boo xam ni ñaari fan yoo xam ni dañuy xoolaat ndax dañ koy continuer wala déet. càllu koom-koom nag Sénégal mooy amal nag te ak ëllëg ak waa FMI ak Union européenne ñetteelu forum africain lépp finance publique politique budgétaire ak croissance solidaire ñu bi nag boobu lekkoon lël ci suba ci njiitalu Amadou Ba ministre de l'économie ak finance nag ak njiital adjoint bu département des finance publique bu waa FMI Sanjif Gupta ab lël la ñu amal nag ci biir ARMP mu di nag ab formation ngir rek xam xam daal lenn mooy liggéeyu régulation ci wàllub marché public ngir rek ñu mën ko nag wasaare ci askan wi xawatina ci wàllub code des marchés ani ci soxna Khadija Sy mbirum formation dana woy fële ca biir agence de régulation des marché publics ñuy amal nag ay formation ngir mën a tàggat yenn ci xeetu doomu aadama yi ngir ñu gën a mën a xam liggéey bi ARMP di amal bu weesoo nag dimension administrative ci marché public tey ji ARMP dafa soxla ñu xàmmee ko waaye it ñu mën a ràññee li muy def ndaxte bépp réew bu dox booy jël marché public daf cee am wàll gu am solo d'abord bari nañu mais ñi ñëw ñëpp ku ci nekk yaa ngi jóge ci benn localité bu wute région yëpp ci Sénégal département yi village yu gën a ndaw fu nekk ndekte forom civil am na fa ay représentant ñooñu ñëpp ñoom ñoo converger ñëw participer ci formation bi kon ñi relais bu mag la boo xam ne bii bu ñu waxtaanee ak ñoom ba tombé d'accord que ni nii léegi lañ bëgg ñuy gise marché public yi ku ci nekk fa nga dem nekk fa également ndawal forom civil am kàddu gox xam mën nga ko mën a yëkkati pour nit ñi gën a mën a comprendre lan mooy njëriñu marché public. tàggat suñuy membre surtout ñi nga xam ne ñi ngi ci gox goxaan yi ndax ñu mën a gën a mën a jouer euh, rôle bi nga xam ne moom la xaar ci citoyen mooy rôle d' alerte et de veille et te xam ngeen ne ne marché public euh, dafa am réforme bu bees bu ñu def ci code des marchés euh, dañoo buggoon suñu membre yi gën a xam lan moo. waral nguur gi def réforme boobu ak coppite yu bees yiñ ci indi euh, ñoom ñun ban taxawaay lañ ci mën a am. ñu lëkkaloo ak société civile di jàppale yenn ci sénégalais yuy liggéey ci yenn xeetu secteur d'activité ngir ñu gën a mën a comprendre procédure yi ëmb ARMP. ngir loolu nag gën a mën a wéy élèves yi dañoo yëkkati seen xaalis def ko ci formation bi ngir mën a jàng lu bëri bu ñu paree nag ci jàng bi ki la nga xamante ni moom moo nekk ci bopp ARMP jàpp ni dina mën a tax nit ñi changer gis-gis bu ñoo am ci marché public yi. philosophie bi nga xam ne moo sous-tendre marché public bi depuis 2008 nga xam ne réforme bi dugg na en vigueur on a mis dañu def accent bi ci wàllu lépp loo xam mooy li ñu mën a tuddee police marché public maanaam lépp lu soxal transparence respect procédure yi règlement des différends yi audit yi contrôle yi loolu moo doon li nga xam ni moo gënoon a soxal. ARMP ba sorte que tey ji mën nañoo wax ni transparence ci biir marché public au Sénégal réalité la. at bu nekk autorité de régulation des marchés publics dina former ci lu toll 2000 ba 2500 cadres administration centrale yu secteur privé waaye it yu société la loole dina tax ñu gën a maîtriser lépp lu ëmb passation des marchés publics. jërëjëf soxna xalijatu si waa CNES nag ñoo war a amal kon ci Europe rek may kon li ñu wax rek ay journée économique ci diwaanu Thiès nag ginnaaw kon bu rek waa Matam bu nag waa Ziguinchor ak bu waa Kaolack nag mu war a kon boole daal ñu yëngu ci wàllub koom-koom nag bàyyi ko kon ci rek privé bi ak ci wàllub public bi ngir nag su xali boobule région def ko li ñuy wax rek ab pôle de développement reportage bi li ndaje wecce dafay wéyal ci logique journée économique yu waa CNES kuréel bi ëmb employeur yu Sénégal ginnaaw nord centre ak sud tey ñu ngi teew ci ouest réew mi ngir suqali goxu dëkk ba di ab pilier ci yokkute. développement Sénégal du Dakar développement Sénégal dafa war a nekk ci ñu wasaare ci réew mi yëpp waaye plutôt que ngay jël comme ni ñu ko defee woon région yi benn par benn dañu waxoon dañuy dajale ay région dajale bi day yokk doole day tax aussi mu am li ñuy wax continuité non seulement territoriale mais économique. bili lël dafay waajal journée économique yi ñu war a amal ci diwaanu Thiès 8 ak 9 mai ñu door ko depuis 2010 yili lël ñooy dajale acteurs publics ak privés ci ab gox ngir def ko ab pôle de développement. partenariat bi ñuy wax lëkkaloo bi ñuy wax mooy bu secteur privé bi ñu doon ñun waaye bu collectivités locales yi ak bu état bi. bu ñu boolee ñett ñooñu yokk ci université yi ak école yi am nañu yaakaar ne non seulement dinañu dimbali suñu réew waaye surtout xale yi seen jàng dinañ ko def ba nga xam ne bu ñu génnee nañ mun liggéey fi ñu dëkk boole ci aussi collectivité locale yi ñu yokk seen doole pour ñu mun def ay projet pour yoo xam ne day développer Euh, pour askan bi fi ñuy dundee. mu di ab yaatal bu waa Thiès rafetlu ndax ndaje yi gën na nakaaru wéy ba ci gox goxaanu Sénégal yi. il ñu leen di gën a sentir ci terrain bi mais également dañu xalaat ni CNES war na ak gën a am taxawaay ci wetu secteur privé bi mooy ñi nga xam ne dañ am seen alal di ko jéem euh, développé ci niveau décentralisé par exemple soo jëlee dëkk bu mel ni Thiès gis nañ ni secteur privé bi. am na mais amul doole bu baax mais également secteur privé bi kenn encadré wu leen mooy jàppale leen ci ay formation te leen ay ay ay financement te leen benn banque bu leen accompagner loolu des na beneen aspect bi mooy ñu bi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy projet yu mag yi état bi am Sénégal Thiès ñu nam fa amal kon loolu yu ni mel ngir soxali koom bi ginnaaw Thiès nag dañu teew ci penku réew mi maanaam Tambacounda ak dugg lu ñetti fan nag la ñu amal kon ngir rek taxawal benn politique dialogue nag xëyu ndaw ñi rek nekk kon nag ci kaw gi ANPEJ ak ministre de la jeunesse ñu samal nag daal ay jéego lëkkaloo si ak waa CFAO ànd ci ak ba Badara Diop. mbir mi doy waar war a tax sax ñu amal taxaw seetlu ngir saytu ko bu baax a baax ab jàngat bi nga xamante ni defoon nañ ko ci atum 2011 ñi ko amal di ñi nga xamante ni ñoom ñooy initiative prospective agricole et rurale IPAR muy wane ne lu toll si juróom benn fukki junne ci ay ndaw yi nga xamante ni ñu ngi wutum xëy lu ëpp ci ñoom wala sax lu ko raw bu baax ñu ngi jóge fi nga xamante ni moom moo di kaw ga ngir saafara li ni mel moom moo tax ministère bi ñu dénk xëyub ndaw yi jaaree ko ci agence nationale pour la promotion de l' emploi des jeunes di ANPEJ fexe ba nga xamante xamante ni dinañ dooleel kaw gi bu baax a baax ngir ndaw yi mën a delluwaat fexe faa liggéey. donc defe naa saafara euh, jafe-jafe yooyu dina bokk ci li dimbali askanu Sénégal surtout ci ndaw ñi nga xam ne dañoo ja ak jafe-jafe liggéey ñu toog ci seen dëkk man faa tedd man faa am njëriñ donc euh, loolu lañ ci waxtaan am nañu yaakaar bu baax ni que euh, li FAO def atelier bii nii. ay ay ay ay saafara yu méngoog jafe-jafe yu ñu am dinañ fi juddu. bi leen ndaje nag di jéego bu njëkk ci bëgg-bëgg gouvernement bi nga xamante ni amal na ko mu jëm nag ci li nga xamante ni moom moo di promotion d'une économie rurale moderne jaare ko ci ndaw yi ndaw yooyu sax gëm ne li ni mel mën naa am moo tax ñu daal di ci sóobu. dimbale ministère de la jeunesse ñu am stratégie nationale pour dimbale ndaw yi ñi nga xam ne dañu bëgg a yëngatu ci wàllu euh, gox-goxaan yi ñu liggéey. li ñu ci jublu nag mooy lépp loo xam ne jafe-jafe la woon lu jëm ci wàllu euh, formation wàllu am suuf wàllu financement wàllu facilité fiscale ñu xool ko xoolaat ko ba débouché si ay solution yoo xam ne dina yombalal ndaw ñi seen nekk seen nekkin li ñu jublu ci bile programme nag mooy fexe ba samp ab document stratégique bi nga xamante ni dina mën a saytu seet bu baax a baax yenn ci ay opportunités yi nga xamante ni am nañ ko ngir jox ndaw yi xëy jaare ko nag fi nga xamante ni moom mooy dëkk dëkkaan yi rawatina ci li nga xamante ni moom la ñuy wooyee chaîne de valeur yi. invité nañ ci lépp luy organisation faîtière yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu monde rural organisation de jeunes yi organisation de de femmes yi parce que bu ñuy wax souvent jeune dañuy faral di fàtte jigéen ñi dañ ci occuper une place très li ci jublu daal mooy bu ñu paree ñaari fan yi réflexion yi nga xam ne dañ koy tàmbali ñu am ci ay début de solution yoo xam ne dañu permettre ñu yombalal ndaw ñi seen wutum liggéey ci gox goxaat bile dialogue national dina dajale diirub ñetti fan ay téeméeri participant yi nga xamante ni dañoo représenter ay ministères ak ay agences yi nga xamante ni dañ cee laale yenn ci ay partenaires techniques financier tamit bokk nañ ci ay ndaw mu di góor jigéen ñi nga xamante ni dañoo yore seen i projet ñoom it dinañ fexe ba bokk ci li nga xamante ni moo di bile ndaje liñ ci jublu moom moo di fexe ba weccee li nga xamante ni moo di expérience yu ñu am ci wàllu dialogue national jaajëf Alioune Badou Badara Diop mardi 17 mars atum 2015 la presse du jour li ceet yéenikaay yi réew mi moom nag mu ni daal benn semaine moo des kon ngir ñu amal verdict bu procès Karim Wade fi mu nekk nag tension moo daal di yéeg Wade moo dellu waat rëbës ngir nag dalal xelu doom ji Karim ñu teg loxo maître Amadou Lamine Sall ndawu PDS yi jox délai groupe Macky Sall enquête de PECO ab tempête ci waa PDS ñu def maître El Hadj Amadou Sall garde de parquet ci Bathie Seras Aminata Nguirane ñu def nag it docteur Cheikh Dieng maire bu Djiddah Thiaroye Kaw garde à vue ndax lim gu takkoon ci ay pneu ca mairie ma i kaay L'As Quotidien àddu ci yooyu lay teg loxo nag ci ñooñu waa PDS yi nangu duppee ko saltan ci karimiste yi ñu yóbbu prison bu Diourbel Assane Mbacké def garde à vue maître El Hadj Amadou Sall ak maire bu Djiddah Thiaroye Kaw yéen i kaay Le Témoin nee na kàddu yu graaw ak menace kon ca lu trouble moo tax ñu teg loxo ñetti responsable déggu ginnaaw ñuy waajal verdict bu 23 mars bu Karim Meïssa Wade yéen kay libération ne nguur gi nag moo radicalisé wu article 80 tax na ñu def garde à vue maître Amadou Sall ñu ubbi information judiciaire ci Bathie Seras Aminata Nguirane ak nag mandat de dépôt ci Serigne Assane Mbacké direct info ne opposition ak nguur gi nag ku nekk mooy tëkku moromam fitna yi nag ci ay kàddu di bàyyi ko fu nekk mu war a nag doon benn semaine ci wàllu tension bala verdict bi tere nelaw doomu waa Sénégal mu soxal procès bu Karim Wade le quotidien lu quotidien addu ci rapport audit bu hôpital Abass Ndao ginnaaw nag demum njiit la docteur Youssou Ndiaye ñu fësal si nag ay anam daal yu àndul ak yoon mu di nag ay combine yi tax boobale l'hôpital am problème 900 millions par exemple déficit ci 2010 jàpp atum 2012 quotidien mu ne nag loi cadre négociation SAES ak waa gouvernement bi ab accord la ñu fa antal ngir rek taxawu université yu Sénégal public nag ñu taxawal kon conseil d' administration bi indi woon nag coow ci dialogue diggante SAES ak gouvernement bi. Le Soleil ne gouvernement ak SAES kon ñoo xaatim benn protocole d'accord mu di nag lu jeexal grève bi waa SAES dooroon depuis le 16 février mu di ab loi cadre nag bu war a delluwaat ci kanamu député yi ca ndaw pencum réewum Sénégal. Thialou Sport stade mu fësal nag Abdoulaye Diallo mi wax nag ci ay ambition mu ne nag itam doon na mu imposé wu ci sélection ci diir bu yaatu yaatu ginnaaw stade waa sport Monaco Arsenal ak Barça City kan moo siy sauvé Angleterre nag mu di ab laaj boobu lay tuyee ni kay mu war a nag doon kon ab exploit wala sax zéro pointé ci Ligue de champion jeexal ak arène bu Sénégal sunu lamb nag fësal Samir Fawaz mu di nag spécialiste ci wàllu sport de combat mu ne nag Eumeu Sène moo gën taxaw Balla Gaye waaye nag Balla moo am avantage de lutte pure te sax défaite bi nag ci Balla lay gën a war a mën a mu nekkoon xibaaru nag 13h yi tey rek ci mardi bi 17 mars atum 2015 mbokk yi yaa ngi jëf ci seen teewlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa